jafe-jafe ci wàllu ndox mi yéen au niveau de Pastef yéen. loolu yëpp loolu yëpp ci Mansour Faye la Mansour Faye bi nga xamante ne moo fi taaloon coow yàggul ci demal wuyu of nag mu indi fi coow lu jeex yooyu yëpp ci ci ci gestion am la amee dafa nekk nit koo xamante ne tey ñu bugg ko ñu bañ ko ëllëg dina rendre compte xam nga lan moo tax dina rendre compte mënoo ñëw ñu am plan décennal def 767 milliards yow nga nekk pendant 4 ans et 9 mois ci benn ministère façon tappale bu nekk nga def ko exécuter ay programmes yoo xamante ne c' est des centaines de milliards nangu woo rendre compte te contrat ñuy siy tey sénégalais yëpp am man tey dama yeewu sama kër bëgg a sangu ndox ma sangoo sax mënu ko am ñu bëri aussi problème boobu lañ am parce que moo tax parce que nit yi dañuy jël yoo xamante ne sooy xam dañ koy def te xamuñu lan moo tax ñu def ko amul benn objectif maanaam nekkul ay choix yoo xam c'est des choix objectifs fay Sénégal yi ci gis seen bopp yii nag war na mën a jeex Sénégal tey dëkk boo xamante ne soo bëggee ndox mënoo ko am soo bëggee électricité bu doy mi ngi cher soo bëggee jàngi ay abri provisoire ñu ngi fi am ay six mille et quelques waaye aussi soo bëggee toog sa réew liggéey mënoo ko am mooy ñun dañoo mettre les charrues avant les bœufs mais maanaam dañu waral a liggéey ci baa bi maanaam fexe ñu sécuriser Sénégalais ba yi nga xamante ne mooy as néew bi nga xamante ne war nañ ko garantir askan bi ñu garantir ko donc seen yi ñuy wax yëpp ay plan ay ay ay PAP 2A ay dem tabax ay terre ay mille et quelques milliards. te amul woon amul benn sens. seen eau da gis ni daal ñoom euh, daf ñu fi benn. non non ils ne font pas l'affaire li fi nekkoon mën nañ ko fi bàyyi parce que ñoom dañoo jël indi ñu loo xam ne dafa bees mais amul benn njëriñ parce que ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe mm-hmm. alors euh, yaa ngi wax léegi responsable mooy Mansour Faye et que tôt ou dana rendre compte alors man damay dégg seen discours diw dana rendre compte d' accord mais est ce que bu ñuy rendre compte waru leen ko basé wu si ay corps de contrôle def seen rapport teg ko mais mais bu fekkee da ngeen wax diw dana dafa mel ni euh, da ngeen am benn benn benn genre lu ngeen bëgg a venger wu si waa kër président Macky Sall yi bu ma leen di dégg ngeen non nga président Macky bu nekkuloon poste bu mu nekk di ko gérer gérer boo xamante ne baaxul turam bu ñu ko tudd Abdoulaye Wade sax si discussion bi sànq ñu tudd turam dafa nekkoon président Sénégal il sait que sax ñu tudd turam dafa fi ay nekk premier ministre yore fi parti bu nekkoon keneen moo nekk place am dañuy wax turam am na jamono ñu naan non wax ñu ne euh, France France France France France te pourtant Ousmane Sonko newoon na man ànduma sax ñi xam dañuy wax France dégage France on a rien contre France mais bu nekkee dafa jël loxoom duur ko suñu biir économie bu laa leen tudd turam dañuy tudd turam ñun on raisonne relations extérieures waaye teewul ne aussi képp ku ñu war a cité nommément waxante yow dañuy waxante ak yow li tax nit ñu wax ak moom président si boppam wax ne dafa bëgg def euh, reddition des comptes mu nekk loo xamante ne lu lu lu yees lay nekk Sénégal lu am solo nekk Sénégal nit taxaw ne man du ma la rendre compte suñu ma woowee la preuve delluwaat na après nuancé propos yi ma waxoon lan moo ko may loolu ci gouvernement boo xamante ni ñëpp ngi taxaw di liggéey seen liggéey lan moo ko may loolu parce que proximité ak président ñu nag dañ ko bëgg ne boo nekkee Sénégal di liggéey comme ñun ñi nga xamante ne dañuy liggéey am ay poste hmm. ñu defee benn rëq suñu ndigg bu defee loo xamante ne yellawul ak li nga xamante ne askan moom la diggaale ñun dañuy war a rendre compte askan bi donc moom lu mu mën di yore aussi dafa war a rendre compte tey mu ëpp portefeuille daanaka ginnaaw la ministère de l' lan moo ko justifié xam-xam ñu mu nekk bi appel ñu ko background téeméer yoon ëpp ko doole ëpp ko xam-xam téeméer yoon. mais mais monsieur Keita loolu c' est c' subjectif nag wax dëgg yàlla parce que euh, ndax compétent na wala président mooy xool ndax li mu koy liggéeyal ma ngi koy satisfaire. waaw mais xam nga man su ma nekkee acteur politique am nag tuuti bagage intellectuel tamit maa ngi sant yàlla jàng ni ñoom am naa droit aussi su ma xoolee CV am comparé ko CV yeneen ténor xam ni kii dëgg-dëgg ko joxee tamit. am nañ ci moom yaakaar mais yaakaar mi am ci moom def ko waaye tamit suñ ko joxee lii aussi pousse nañ ko pousse boo xamante ne na am li mu euh, nekk goro président moo tax loolu sama jàngal sew si wàllu xam-xam Mansour Faye amul xam-xam bu mu yore ministère Mansour Faye su amoon xam-xam yenn wax yi mu wax du ko mës a wax bu amoon xam-xam chaîne télé bu mu demoon def déclaration boo xamante ne amul benn sens du ko mës a def comme ñeneen nag ñeneen ñu bëri ñoo xam ne dañuy dugg si tur si wàllu politique naan dañoo am xam la moo tax temps parce que dañuy xëy benn jour ñu ne non président Macky Sall génie politique la parce que moo def li moo man ma xëy bind benn article ne non man reconnaître mon président benn intelligence bu nekkee da nga fi ñëw en am ay jafe-jafe ba 2020 après problème majeur Sénégal yëpp mënoo ko résoudre intelligent wu. mais génie boo gisee tey lépp luy dox Sénégal tey décision politique moo tax muy dox tey coow li am yëpp ak changement yi fi am yëpp ñoom il sait que dugg ak kee ñëw ak mënuñu ci dara xam nga la moo tax. vision politique bi nga xamante ne lañ si plan Sénégal émergent bu baaxul dara mënuñu faa am lu positif te kan moo koy décliné président Macky Sall moo koy décliné moo tax ñu wax ak moom. di ko jaajëfal